di leen balwaq di leen balaq tey ñaan yàlla na bor yàlla boole nu baal defal nu jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira defal nu itam jaamu yàlla ko ñu nangu di sant njaboot gi fi teew yëpp su ma ndijaay góora bu toogee waruma wax ndax lépp lu aju ci mbajaan moo ko yor gannaaw bàll baax <laughs> ñu ngi leen di siyaara di leen balaax te di leen balaax tey xamal ne leen soxna aadama soxna Fatou mu ngi lay nuyu na mu la ñaanale woon ca kër ga ba ngay dem ñaan googu day yokk waaye du arrière nee na mu ngi sant ñëpp waaye yow sa liggéey ci kër gi xam na ko ndax songo la woon ak sagar bajaan ak góor gi Assane Badiane ak ñële ci wet di la xamal ni moom day bari na xale yu juddoo ci mbajaan moo daan jóge jaayaan ñëw bojji lañ def ci ngénte la kon xam na kon fan mooy Mbadiane waaye li nga liggéey ci biir Mbadiane bi nga fi duggee ak tey gis na ko gis na ko bu wér cër bi nga ko jox cër boobee day da nga koo yokk waay wàññi ci dara nee na mi ngi ñaan yal nanga nga kaala gi te it ànd gudd fan ak wér yal na nga kaala gi ànd gudd fan ak wér yal na nga rappal kaala gi ànd gudd fan ak wér ak mboolem ñu ngi ko bokkal ndax sey mag a ngi nii say rakk ngi nii njaboot gi ci kër gaa ngi nii. man de kër gi yàgg naa fee ñëw li fi nekk yëpp lu ci ëpp xam naa ko waaye nekkin wi ci kër gi rafet na lool xale yi dañoo gërëm di wax rek waaye am na ñu leen waxal Ndiaye Gora Badiane mii bu ko neexan lii xale yi wax yëpp mu ràppate ko ndax da dafa teew ci kanamam kon nag soxna si yàlla na yàlla rappal kaala gi te nga rappal ko ñu ngi ñaan ci yàlla. Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam moom nga siyaare ji bul deñ di ñaanal doom aadama yi wax nañu ni lenn ci borom xam-xam yi wax nañu ni li commencé bis bi nga ñibbisee ba keroog mi am ñeen fukki guddi loo fi ñaanal waaye mun ne yàlla nangu ko kon nag bul deñ di ñaan di ñaanal doom aadama yi ndax addu'aawu silaawul muminin ñaan mooy ngànnaayal jullit adduwaawu moqul xibaada ñaan mooy yuurug julli jaamu yàlla kon nag yokkal ñaan yi te ñaanal ñi nga war a ñaanal moom xam naa ko ma jëm ci alaaji taala wala ma jëkkee nijaa góora soxna Fatou nee na mu ngi lay sant fu mu la fekk sañ na la poñe nga làmb sa poos jox ko fu mu la fekk sañ na laa poñe nga làmb sa poos jox ko nga di ko jox ba ko jox koo xamante ne nekk nekku fa sax nee na mu ngi lay gërëm di la ñaanal mbajaan gi nga xam yàlla na ci rek na nga yow itam gàddu kaala gi dem màkka del si defal ko mboolem jullit yi alaaji taala benn jëf képp lay seede ndax bii la gaa yi seede waaye man bi ma seede mooy keroog biñ toogee sa kër di wàcce alquran kaamil bi gaaw lool ma ne la alaaji bu la neexee man ngaa bañ a tee woote wàcceem kaamil ndax boo jëlee ay nit sey doom ak doomi jàmbur yabal leen ñu jàngi ba ñëw ñëpp mukkal alxuraan lu war a mat juróomi nit boo wootee te wàcceem kaamil daf laa neex te dem ko ko da ngaa yaakaar ne alxuraan asaar rek la déedéet fa man ya'mal misqaala sarratin xayran yarahu waaye wa man ya'mal misqaala sarratin sarran yarahu ku def lu baax gis ko ku def leneen gis ko wala tasiru wasiratu wisra uxra wa an laysa lil insani illa ma saa wa anna sa'yuhu sawfa yura amul kenn koo xam ni man ngaa yanu sa bàkkaaru morom déedéet xanaa lenn mu sos mbir mu ñaaw nga roy ko ca mbir ma ànd ak moom bu keroog yéen a yam kenn ku nekk la nga jëf rek ngay jëf wa anna sa'yahu sawfa ra kenn ku nekk la nga xam ni moom nga liggéey moom ngay am alaaji fii la billet bi di dikk tey waaye jëkk na fi jëkk na feneen fu dul fii nii nga yóbboo say njaboot ay njabootu jàmbur nga jëkk yóbbu te nag ku xam màkk xam la fa ne xam la fa xew ak coono ya ak jaljal ya ku ma dem ba ñëw wàññeeku yéene sa njaboot yëpp dem fa ngay wàññeeku di nuqi sa poos ja def xamal ni benn billet buñ la boo joxe am nga ñaari tuyaaba ndax am nga tuyaabay ah, billet ba nga joxe am nga tuyaaba billet ba nga joxe te itam du wàññi ci sa billet dara du dem nga ba ñëw yóbbu nga say way jur yóbbu say soxna kenn koo yóbbuwaat lu mu aj ci màkka ci yool di nga am lépp loolee da nga am lépp loolee ndax ku def benn bu baax yàlla fay la fukk ku def fukk mu fay la téeméer ku fay téeméer mu la junni ku fay junni ku def junni yoon nag yaa xam alaaji taala ñu ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla te xam ni bii màkka bee ci gën a tuuti soxna Fama ñaata xarit tabaski la aada la alaaji taala yi génne parat xam nga ko xamaloo ko de xari tabaski laa de man mi maa ci jiitu keroog ba alaaji Ngor a demee Màkka ak tey jii at bu jot mu yeewal ma xaram tabaski te maa ci gën a nekk gune gën cee ñàkk solo lool mu di ko def waaw ñaata junni lay jékkati par weer di ko joxe ci doomu aadama yi xam nga ko billet Màkka bee gën a tuuti bu yóbboo juróomi billet Màkka balaa weer waa del ci déwén dina joxe ci xaalis lépp loolu di gërëm ñëpp alaaji góor a ni nga tapé sa ndijaay ak sa ndijaay alpha sa ndijaay wasino nga sos ci ñoom rek te sa koo leen am da yaakaar ni yow dangay ngay def lu baax te yàlla du la ko fay déedéet déedéet kenn ku nekk kamu sësol roy ko lu mu am ci tuyaaba di nga am ci tuyaaba toll ndax wóor na la yow ni alaaji taala bu bëgg na toog ca meeri ba tey wàññeeku fu pi pireenu courant war a nekk mu dem fa fu mbir lëjë mu dem fa dana sonn waaye ni ko awee ci lépp yàlla gis na ko gis nu ko xaw ma ku la xamul waaye du jaayaan bayal Alpha moom dañ koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér ndax li muy def ci man man waxuma li muy def ci taala waaye li muy def ci man moom la ko lool Baye <laughs> yàlla na ko suñu maam góor maam maam Jibril Jaañ aw fan la waa nga waxal yaag bàyyi seen alxaaji mi demoon daaw yaakaar naa ni keroog nga naa la ca ëllëg sa laa ñëw siyaare si la waaye maa ngi sant soxna astu nag gis nga buñ nee diw baax na nañu seet ba xam mbokk yaa ko wax wala déet su ko mbokk yi waxee d'accord nañ ci nanu seet ba xam mbokk yaa ko wax wala déet kon soxna Astu buñ ne baax na yàlla alaaji jox ko biye màkka mu ni sama wayjur laa ko gën a yéene ñi meew maa dem te sama wayjur toog <laughs> eh <laughs> alaaji ba nga demee parti woo soxna Aja te lu mu am li ma la wax leen rek man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha wala yanqusu min ajrihi shay'an gi nga ko sos lu baax ku la ca roy dina ca am tuyaaba ju tol noone te du wàññi ci tuyaabay ka defoon loolee dara soxna Astu li nga li nga defal sa wajur wi am nga yoolu ku dem Makka delsi te bu yàlla mottalee incha allah di nga dem yàlla na ko yàlla def di njaboot gi ci kër gi yëpp gis nga njabootuk taala man day maa ci gën a ñàkk solo surtout soxna su ñaaw si jàkkaarloog man bu <laughs> ma dajeek ñoom samay moroom lañu maa leen mag téeméer junni ah. waaye ñëpp samay moroom lañu ba kon woyof moo leen may loolu su doon ne alal rek la mën nañoo rëy rëylu mën nañoo kawe waaye defuñu ko kon yal na yàlla fayal mu leen wax ji du góor yi waaye ma xamal la ni alaaji taala Abdou Diagne mi yokk ko ñaan Abdou Fari Sarak yokk koy ñaan ndax kat du fekke fenn fu ñaaw du fekke fenn ñaaw lépp lay defar lépp lay defar Abdou yàlla na kaala gi delluwaat te nu ànd na loolu dem bàyyi ma fi de ak sa xarit boobu nga dendal soxna yi ci kër gi muy aja soxna Seck. gis nga maam soog Sogga bajaan moo jàpp ci sama loxo man yóbbu ma ba Canaba wutal ma kayitu juddu ma wàññeeku dellusiwaat jóge bi dem Kaolack wut kat daante doo door a mën a dem Gambie kon yaakaar naa du ma jàmbur ci kër gi. sama goro di sama ndijaay Ousseynou Badiane ak Matar Assane Assane Badiane suma goro laa koy wax waaye goro bu ñàkk solo la sama ndijaay la nag. yal na yàlla fayal nu leen yaatal ngeen ubbi ngeen lépp leer na nu ngi ñaanal yàlla képp koo xam teew na fi yal na yàlla defal la gudd fan gu ànd wér gis nga soxna njabootu soxna sekk gi bu leen neexoon réew wala ñu rëy waaye buñ ko defee juum ndax seen baay fii la toog ma am jafe-jafe Gàmbi ba ma ko téléphoné la ma ne loolu deñ na te noonu la ko defee ba ma demee ba del si pana waye ci la ma dugal am lu ma defal ma dem boobaak tey ji yëguma ko Maguette bajaan yaa ngi ko séqal nangeen ngeen góorgóorlu na ngeen góorgóorlu Gora Badiane yaay mag ci kilifa kër gi waaye bul rëy benn question képp laa lay jox am na suma ndijaay bu ñëw léegi bi mu dikkee fekk ma toog ci bank bi dama wàcc jox mu toog ci suuf mu ñu toog kenn ku nekkat ak jox ko cëram ba mat sëkk muy doom muy rakk muy xarit képp ku ñëw kenn wàcc toog kenn toog taalube lu muy jëriñ taalube bu wóoyeful dina am dara taalube mooy sàkku talaabul ilm mooy taalu bi kuy sàkku ndax di nga rëy ci kanam ñi nga ñi ñi la ñu la war a jox li bàyyi mbaxana ci wa bopp woyofu kon ku woyoful doo am dara yéen jigéen ji na ngeen toog ci seen ronu jëkkër yi te woyof yéen góor ñi na ngeen am yërmande haasa ak aqbahu samaan li kasratil nisyaani fi nisyaani jamono bii moo gën a garaaw ci jamono yi lu tax internet yi daw ak yu sew sewaan yooyu mandal ku ci sàggan ñu yàq la te ku ci yàqu kenn mënu laa defar ndax tas nga àdduna bu pare tasaaroo nañ la ci biir àdduna ñu ngi guddal te guddal waruñu ndax alaajee ngi toog moom la ñuy diglu ma diglu wuñ ma kon ñu ngi ñaan ci yàlla mi nga xam ne mooy borom lépp ak fépp ñëpp yal na bur yàlla boole matale lépp yal na bur yàlla boole matale lépp yàlla kii borom suutura yal na yàlla suturaal ñëpp alaaji taala biyeeyi yàlla bu mu fi yem yàlla bu mu fi yem du fi yàlla bu mu fi yam xam nga lu tax ma ñaan yàlla bu mu fi yem yonent bi nee na yaddul xuliya afdalu min yaddi sufla loxo bi féete kaw di joxe moo gën fu loxo bi féete suuf di nangu yaddul xuliya afdalu min yaddi sufla te nag ana kan mooy lebal yàlla lii mu def ni lebal yàlla la am na fukki billet màkk yoo xamante ne yu mu joxe yoo xam ne bu leen bàyyi woon ak seen bopp wallaahi duñ dem màkk wala boog dina yéex lool waaye fekk booba sunu maam Ibrahima moo woote ci wooteem ba min kulli fajjin hamiq jaarale wërsëg wa ci moom ñoom mooy itam mu am xol joxe ko góor gi nee na li nekk ci ténqi loxo boo ko joxee li ci mbagg mi ñëw waaye boo ko téyee li ci mbagg mi du ñëw kon nag nanu du nanu jàppalante di dimbalante di suturaalante di jàmbalante wa taawano alal birri wa taqwa waaye wala taawano alal ismi udwan ñu ngi jéggulu di ñaan ci yàlla kenn ku nekk fa nga jóge tànk ya nga jóge ba si fii jitaay bi nga fi def ba kenn nga fi jógewaat ba kenn nga delluwaat sa kër yàlla bu ko yàlla boole ci sa nokk yi nga war a nokk ci àdduna yàlla kii buur di borom yàlla na buur yàlla boole suturaal jàmmal nu jéggal nu sàmm nu sàmmal kër ak wàll yëpp defal teranga yaa dina ko laaj ja àlaxira jàmm yàlla ko ñu nangu sëñ bàcc géey muy nga moom laa dendal ñu te ku mën a wax la waaye fu ñu daje mu daw deseem na mu ngi sant alaaj taala ndax ay ay doomam la ànd ak i doomam seen ñaari doom yi ñoo àndandoo waxal ma dégg ñu àndandoo di liggéey ba mujj sax doomam jóg féete kër taala bi muy samp kër la la ca war ci yépp alaaj taala moo ko def ba tey jii bàyyi moo tax ma ni leen li muy joxe yemul ci biir màkk ba tey jii mu ngi koy def Mbay Jóob ku ko xam xam ci kër gi xam ne ci kër gi moom min na ko lool lool te loolu moom moo ko def moo ko def yéen nag alaaji taala bàcc nee na mu ngi lay gërëm di gërëm soxna Fama ak ñi mu ko bokkal ak njaboot gi ci kër gi yëpp Ibra nag ñu jotalal sunu nuyoo ci Ousseynou ku ñàkk solo la waa yal na ko yàlla dimbali may kon ndam la ko tax a dem boo ko jotee nga ni ko na góorgóorlu ci lenn bu la sa waajur jàppale ba nga dem na nga fexee jàppalee ña des ba ñu dem gis nga benn loxo du takk tubay du du tàccu benn loxo bu taqee du raxasu kon moom itam na fexe ba def ko ni saraxule yi def saraxule yi dañ seet juróom benn nit juróom ñaari nit ñu àndandoo def benn kowaasoo ñu génne billet ma bi bi billet Europe ñu lotari ko ñaar dem boo demee bala nga boo nee cëpp bala ngaa def dara di nga lijjantiwaat billet boobe andiwaatal door a commencé liggéeyal sa bopp ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp mbaa nag fi laa dëkk. suma nijaay wa seenu bajaan ñu ngi leen di sant góor gi Seck ñu ngi lay siyaara bi ñu sant bajaan di sant ja ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi ñaan ci yàlla daal yàlla na yëbur yàlla boole nu defal jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira wasalaamu aleykum wa wa barakaatuhu ba ko génne ci lañ bi ku ko tàmbalee léegi nag benn dëkk ba ñuy joxe ko soxna laa ko jox di jox boobu fay naa mooy fay ci fanweeri junni. waaw su ma ko su ma ko aar ma bañan ma am ci. taa du ko génn ci gémmiñam sax. waaye loolu aar ma génn ko ci gémmiñam. Mm-hmm. lu ma lu ma fay ba dikkee baara fay naa ndax non su ma ko seet la ci. waaye El Hadj Diallo mii. Mm-hmm. man awma leen ma koy fal awma leen ma wax ñaar rek laa dama koy ñaar fa mu bëgg a yegg yàlla na ko yàlla yegg def xajiru ma aadama xaju ma samay doom ak doomi aadama bëkk dee ba nga aaroon yee maag ba tey lu mu jëf xam naa ko dañoo bëkk dee mu yem daan ànd dem ci bitig ba lu man lu mu wax lu man mooy waxal li ñuy jënd ñu wax lépp loo jël rek rek ko jëf sëriñ bi dama koy ñaar na yàlla lu mu wax yàlla mën déwén di góob ndax moom loolu dem naa gi sori la war waaye El Hadj Daal dimbali leen defal ko loolu mu defal léegi te gëm na ko seen bopp gone yi yàlla na ko jaal fay guddal fanam wéral cëram yàlla yokk ba mu yëg ko tey jii wala maa gërëm suñu bàq gi dama koy gërëm gërëm aar ma ñu pare ndax aar ma ñuy njàgg dama ñàkk comme ñëwee fii mënut a doxal mënut a def dara waaye man man naa su aar ko bale dinaa ko bëree tey nii mu jëm mu jiwoon ko ma musuma bale waaye ba aar a bale maa ko tonni day bale ba bale bu rafet mu jël sama xëy lay ko ba putti boo gisee da maar itaali. kon yéen a bokk bale. ah damay nag sama bor yi di fóotu man fóotu ma defuma dara man ma dikkee daal bu toogee ma bokk lekk ak moom attaaya am ma ne ko tey maa attaaya maa attaaya attaaya ji yow taw li ñëwul man ma attaaya mooy boole foo at foo di ko ñaanal yàlla màggal bi yàlla ñu ñu sant ko ne yi sax dañoo xamul ay doom doomi day góor ak bu seen mag waaye ma lañ koo xeeb ma leen ko ne góor a xamul dara baa góor a loolu la man man mënu ko tawas gay nag moo ko te ba tawas gi ren gii li góor a julli ji maagal ko jox mu nga taalu wendi ko ma tawas gu jot ma moor bay boo jëndi daal boo xutte yoram bay ma nga dee bi mu yegg ne ko woon yëpp yegg waaye nii baa nga ne ci la yëpp dabaram tey jii damay wax ba yàgg ba yeggal tur ma du ma jooy sax da sama xolaw sedd damay jooy waaye tey jii li ma bëggoon daa ko wax di ñaanal yàlla Adama ja mooy taam njaboot fu ñu bëgg yegg yàlla na fa yegg te was ngay jot ñu dem ci bitigoo say bee dañuy toog woon day xati fii ni ko lay dem ci tabaski wax na ko fa lañ ko jëndee ba mu bu gaaw jotee moor bay indi bi waa soo bi soo bañ a songa bi tabaski gi jot ak bu ci am ngénte salaat su te loolu bu koy neexee te man bu may sax dama aw ko la may may di ñaan songa bi moo tax yàlla dund ak jàmm rek ko teeru màkka sama gone yi nag lu ñu yëkkati dañu sama gone ci jékk mbaa ñoo ci jaar ànd boobu nag yàlla bu ci seytaane dox yàlla bu leen géer tàggale yàlla suñ doog jàmm fa seen bàyyi yëpp yàlla sut seen bàyyi yoo fan aaram nag mën na ko fay ndax moo laa rab sama koy jël fóotal leen toggal ba tey fàttuwu ma ko fii ne maa ngi ñu ñaaw waaye buur ban bëgg ci dara samay fóotal moom set baas ma ma tàll uh-huh. fóotal ma bëgg ci dara fi sama gone yi ñoom dikk ñoom itam bu ñu añee ci dañoo attaaya ba ca Daba Ndiaye émission ba ca Ayda Mbaye ñoom ñëpp ñu toog di attaaya di naan di kaf di ree di naan di kaf di ree naa guddee bu ñu reer fi ba xaaju guddi sax booy nu am nag ñu doon ba yan na ko fi yàlla duñu dimbali ba kinaa tuuf fi yàlla sax daal yàlla sax daal di sant wasay borom kër geeg wasay bu goree yu na bëgguñu xuloo bëgguñu fee danaa man na koy jeeg ji di samay morom lañu xam nga loolu bu ko neexee nag bu ko def dara da ko naan yow li nga def jaaduwul waaye ñu nuyu sa gone du ko def sax. Kine Seck Seck Kine Seck ni mu def aadama yàlla rekk ko xam ne mu ngi gërëm nogoy kii awagay ndax awagay itam ni ko Kine Seck def noonu la def aadama maanaam adama gërëm na ñaar ñii waxoon na ko waaye moom itam daa xir rek waaye waxoon na lépp. ñu ngi gërëm Awa gay ak soxna ak Kine sekk ndax liñ ko def ak Nabou Jaay mii nga xam ni daf koo def comme moroom ñoom ñaar li ñuy waxante sax moom du ko waxanteeg faama waaw Nabou Jaay moom ak Adama kenn xamul seeni mbir li ñuy wax lépp kenn mënu koo dégg ñoom ñaar dong nga ko xam nee na mi ngi ko ciy gërëm ci woyof googu mu woyof ba def Nabou Jaay moroom mu ngi gërëm Nabou Jaay itam ni mu ko ñimee ba gën koo ñemee yaayam nee na lii ko bëggoon a wax mu rëccoon ko. ay ñu ñëw na siyaara si la yaa demoon ba maakata way mi fa siyaare ka baga sunu bàjjan be ñu ñëw ñu ñëw nañ siyaara si la yaa demoon ba maakata di fa siyaare ka baga anga yonenti be loxo ca kaw ba nga ca rob du yonen sab xol fees nga daal di jox li rek sopp saaba ya ana yonenti be wala ñu nañ si la demoon ba makata di ba ziyaar ka baga ana yonenti be loxo ca kaw ba nga toogee ca rob du yonen sab xol fees loxo yi ci kaw ba nga ca rob du yonen sab xol fees nga daal di jooy ba nga toogee ca raw du yoneen sab xol fees nga dal di jooy ngir rek saaba ya ana yoneen tibe wala ñu ñëw nanu siyaar si la ana yoneen tibe wala ya di aga si la ya demoon ba ana yoneen tibe wala ñu ñëw nañ si yaa demoon ba makkata di fa ziyaare ga ana ajaratu yow ñun ñëw nan ziyaar si la yaa demoon ba makkata dafa safa ak marwata ana yonent ba nga toogee ca rodu yonent sab xol fees nga dal jooy ngir rek soppu saaba ya ana yonent bi ñun ñëw nan ziyaar si la yaa demoon ba makkata ziyaareka bi loxo ca kaw ba nga toogee ca raw du yonent sa xol fees nga dal di jooy ngir rek sopp saaba yaa ana yonent bi ñun laaj na ana Omar ana Ousmane ana Alioune ngir rek sopp saaba ana yonent be walaay ñëw nanu siyaar si la yaa demoon ba Makka ay waay il faut siyaar baga ana yonent be huwa dawatul uzma yudallu bi dilli yamun bila mannin wa yam fil na ñëpp ni nii ñu màggal sayduna muhammadu sallallahu alayhi wa sallam araftu li salma bil yafaaxi maxaaniya غدت للصواري المخصرات البواليا وقفت بها خيرا laa ijil asa ka nga demoon mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa muhammadun nabiyun sama fawqa sima kayn isaamiya ka nga demoon mooy Seyduna Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam huwa dawatul uzma bi dilli يمن بلا من ويم في المعاصي هو المنتهى مجدا وفخرا وسؤددا والمرتجى يوما يصيب النواصي وكان نبيا بالنبوة عالما وأقدم بين الماء والتين صاويا أنا كان في جنب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت الذي قصص كل محبة ولم يكن ذاك الوقت غيرك باديا الحاج منصور نين الله من حجاب النور حان حجابه وبالكبرياء والعز أصبح باقيا bàjjan ka nga demoon moo gën ñëpp mooy sayduna muhammadu mahabbatu yumnun wa amnun wa rahmatun wa taksu min al man kaana aariya na ñëpp ne nii ñu màggal yonent bi alxaaji mansuur si malik borom ñaari kaale na turandoom sayduna muhammad fa akrim bi man asra بالله ليلة يقترق سبقة باق العواليا نيبني نمجل ينتبي ومن قاب قوسين منير ربي دنا فتدل ثم حاض المعاليا فلولا كما أتاب الإله الإياد من ولا أنا صنون عمران الجائيا ربك نار بردا للخليل قد أصبحت أثارت سلاما لا تدع ملاقيا من يبدو تخون يمقر سيدنا محمد أجاب بك المولى سليمان إدعى fanaale bihi mulkan anil xayri faaniya sëriñ Babacar Si Malick feelu magam na an yonent yàlla Muhammadu yëti maxatukumoo yëti maxatukumoo يتيمة رسول في أضواء يأتي أمين الذي لولاكم ما برزت سمس ولا خمر خضراء وعبراء سرين باب كرسي مالك سيدي فاقي دم ما شجاو أرنين ينتبي يأتي أمين الذي لولاكم ما نظرت سمس ولا خمر خضراء وعبراء سرين باب كرسي يأتيه أمين الذي لولاه ما نزلت آي خديس فلا كتب وإملاك سرين بابا كرسنين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن كان جعد ونكد في الزمان بدا جود وتود الله فالكف وكفى وكن يننت بي يا صفة الوصف والموصوف سعدلو يا أتيب عنصر من تنمو عليا نيبني ني ني مغدل يننت بي دمر كريم لو اسم للكريم لو نعم الكريم كريم الأصل معتاء محمد أحمد المحمود ترى رب فيظهر أجداد وآباء ركم جباخ جفيلكم مام عبد العزيز دباخ أنا نبغ دباخ مالك نيكو خبو تعالي المذنبين نجاة وأمان من هول يوم اللقاء بو بغي ينتبي سيا بيرم أرام نصورا مام عبد نينم هاج الشوقي لقب خير البرايا مدر لطف يكرم الكرماء ما مبدنين هو بيتي وذمذمي وحكيمي ومقامي ومروتي وشفائي حرمي مشعري loolu moo waral lan am kàddu yoo xam ne man bëgguma sama kàddu njëkk leen moo tax ma ne tekk bàyyi ba kàddu yooyu dem ma doog jël sama kàddu te bëgguma tam sama kàddu mujj kàddu ga laaj loolu moo waral ma ni maa ngi jéggulu di baal nag képp koo xam ne yaa ngi ci tànt bi man baal naa laax di ñaan yàlla yàlla boole nu baal di wax la ma waxan li ma waxan nag guddi gi ma ko waxan le 8 février la woon 2008 Ibrahima fanaan fee ci armeel ya ma woo njaboot gi fii ci Bantere bii am na seer yi ñu ko fekke ci kër gi ma wax leen ni leen aw ma dara mënuma dara taxuma dara waaye bu doon abru yi la ma yàlla wërsëgaleen ma di ko lekk du ma bàyyi doom ji Ibrahima ba le 2008 ba ma ko waxee woon ba bis ni tey jii ma xëy yeewoo ci sama néeg yee loolaa nekk ci man yàlla seede na ko dëggale ci man. du ma bàyyi benn doom bu Ibrahima Badiane jur néew ma nag ñoom duñ ma bàyyi waaye man tànk may fekk Ibrahima doom ji Ibrahima jur su ma la gisee ormal la. gone yaa ngi nii ci kër gi man ñooy samay xarit ala taala gone yii ñoo di samay xarit seeni jabar ñooy samay xarit ñoom laay waxal ñoom laay këfal ñoom laay reyal loolu. dama koy sant yàlla waaye nag di ca sant Ibrahima Badiane bu baax ndax yàlla ak toqi gumma toqi musuma fàttaliku fu ma weranteeg Ibrahima ba mu dem bar saq di nit ku baax di nit ku yiiw Gora Diagne xam na ci dara Gora Diagne mii ala taala da nga koo fekk ci kër gi Gora digganteem la ak ba Badiane góor fi mu ne nii am naa ci moom pikir boo xam ne bu ma ko soxlaalee dara dara dara moom xam na fa may jaar mi ngi nii toog maa ngi nii toog te loolu yàlla ak Ibrahima Badiane mais allah taala maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm ngërëm moo xam ni nag man du ma waxantu de billaahi yàlla laa gëm moom laa wóolu gisuma benn doomu aadama ci àdduna buy tax ma wax lu dul dëgg ci man ndax xam naa li ma li ma dund dootuma dund lu toll kon lu ma ko fi jaral mais da koo jëf ci man ci sama njaboot. ci biir kër gi maa ngi fàttaliku maam As avant muy ñëw ci yow maa ngi yow ñu wax ca ca Daya Diop gàmmu Daya Diop boo mu lañ lay doog a jox soxna Adama. ma wax la ni maam aas na dégg naa mi ngi ci yow waaye allah taala maa ngi lay ñaan bàyyam daa am lu mu ni ci maam aas ndax maam aas Seydi Hadji Malick la ko tuddee te nangu naa ci baayam mu ni Seydi Hadji mii damaa ñaan yàlla mu mokkal alxuraan ma wax la ko nga nangul ma ko yaa ngi maa ngi maa la ko wax nga nangul ma ko te yàlla tax ma sant la ca lool gërëm la ca lool am na fu mu commencé mais amul fu mu yem sa taxawaay ci kër gii man rafetlu naa ko su ma ko rafetlu wuloon bu ma ci mënul dara tam damay toog jàpp sama njàmbur waaye rus naa laa dégg ci kër gi te su lu ma sama daal ñëw ci kaw siyaar si la te arma ba ma joxoon Ibrahima moom laa la jox lu ma daawul bokk ak Ibrahima du ma ko bokk ak yow maa yow bokk benn sang toog maa yow néew na yaa may gëte mais néew na nu bokk ndabul lekk ndax dama wóor ni yaay Ibrahima ndax lal bi Ibrahima daan toog tey yow la yàlla na toog di ci toog te man Ibrahima rek laa gëm moom laa ormal gis bi ko moon may tuddee fii damaa jooy ba son maanaam Ibrahima rek laa gëm moom rek laa sopp moom rek laa wóolu ku ko ormal ma ormal la te ormal nga ko sonn nga ci njabootam ma ñëw ci biir kër gi ah soxna de wax na waaye yàlla xam na ñoom man xam naa ne am na fu ñu ma teg soxna Adama am na fu ñu ma teg fa ñu ma teg nag yàlla na leen ko yàlla fay ndax mën nañ maa xeeb ala taala de ndax jamono bindoo noonu de ku yàlla dogal sa loxo jotul sa ginnaaw gor rek kay ànd ak yow waaye ku dul gor du ànd ak te man de yàlla dogal na sama loxo judd sama ginnaaw waaye musuma dem ba leen ñi ngi nii toog de njàpp laa yor ñaanuma yàlla yeesal ko fi ak tusbaar wallaahi musuma dem bàyyi doom ji ba daan jur wala njaboot gum bàyyi ginnaaw waaye yow de sant naa la gërëm naa la cant goo xam ni am na fu mu commencé amul fu mu yem ñi wax ñëpp man lañ doon waxal ñi wax ñëpp ma toog fee xam ma dem rek yaa ngi may digal ni ma wutal li moom jàppan naa ni du ma mën a wax billaahi jàppan naa ni du ma mën a wax mais sant nañu la gërëm nañu la yaa xam la nga bëgg yàlla na la ko yàlla defal góora sant naa la damaa ànd ak samay nawle ñëw seet ci alaaj taala wax moom mu teral ñu teraanga joo xam ni ñama àndaleen ñëpp dañ caa yéemu ma génn woo la téléphone wax la ko nga ni ma jërëjëf waxtaanee ceeg moom ma ne ah man de dama dul nëbbu jëf ju rafet ju ma doomaa dama defal fu ma nit defalee jëf ju rafet incha allah fas naa ko yéene wax waaye wàññeekuwaat nag bu loolu jàllee di jaajëfal góor ndax mooy maam Ibra Badiane wax naa ko bërki démb Assane Toubé ma lee ngi toog ma ni ko Assane Balla Ndaak góor as Toubé jamono bi bu sonnee ci mbajaan yéen la aw askan boo ca nekkee am rak am doom soo sonnetee yow la man leen bu ngeen sonnetee yéen ñett yéen la waaye jërëjëf sa taxawaay ci ëttu maam Ibra Badiane man rafetlu naa ko te jàpp naa ne moo ko rafetloo sama njaboot rafetlu ko kon yàlla na yàlla fay la bàyyi xalifa bàyyi xalifa jërëjëf Baye Khalifa jërëjëf Baye Khalifa jërëjëf at bii miin na la ci dundu ibrahim waaye kero Ibrahima faatoo ak tey gàmmum baa leen si taala genn guy am kii ak ñi mu àndal dem daaru te jaaruñ saal bi fàttali ko Ibrahima musta am musta am laa wax kon jërëjëf Baye Khalifa yaa xam la nga bëgg yaak sang njaboot yàlla na la ko yàlla defal kontaan naa bég naa alaajaal fa jërëjëf yàlla na yàlla fay la allah taala sa njaboot dina am ku ma ci cité ñi ci des nañ ma koy baal ndax deret a noonu muy soxna Fama Niang damay damay ak akkan te mu nangu ko waaw te bu ko neexan du ko nangu keroog bi ma koy may ab cër ci kër gi xam na ni bu doon tiraanga du ma ko may <clears throat> waaye xam ni aram mbay ak kanni mbay ñoo bokk bàyyi moo tax ma jox ko cër goneem yaa ngi ni maam la seen maam laa loolu neex ci man lool ma kontaan ci lool bég ci lool diñ ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla dolli si wér soxna aadama kaala gi yàlla na ràpp ak jàmm bépp aj bu sunu borom mu musa nangu ca mag yàlla ci boole saaj gi yàlla bu la ci kenn ëppale alaaj taara nag ñu góor wax rek askanu mbajaan ak nja ñëpp la teral kon yàlla na ko yàlla fay maa ngi jéggulu kàddu yi macha allah ala taala bëgg naa bëgg naa gone yi ma bokkal association bi son noorit ñoom ñëpp bëgg nañ ci yow nag ñoom ñëpp bëgg nañ ci yow ki wax ak ki waxul ñëpp a yem góor a jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm sunu ñaari waajur di nuyu mbooleem ko fi teew di ci jiital imam ak chef di village di nuyu góor a borom kër gi di ci teg alaaji Alpha sama kilifa ak alaaji Khalifa Gueye ak Ousseynou mii nekk ci sama wet di sama mag di nuyu imaam Malick Sarr mi fi teewal imaam Ngoura Sarr di ñaan ci sunu boroom lépp lu nu jiite yal na ko yàlla noonu di sant yàlla bu baax nag ci toogaay bi nu toog te lépp di yiw xam naa kàdd yi sax du mën a gudd parce que jigéen ñi ñu ngi may déey ni añ yi pare na te jigéen bu sonnee ci am ñaw am ñam aw ñam nga bàyyi ko ba mu sedd lu ca xew rek yaa ko tooñ eh, di jiital ci nuyoo bi nag comme ni ko Ousseynou waxe ak cant gi ak ñaan gi Ibrahima bajaan bi nga xam ni moo doon boroom kër gi yàlla ngi dogal laata maa dugg ci kër gi ba di fi jël soxna fekkan na maa ngi fiy ñëw am lente ak ñi ci kër gi guddi ak bëccëg yàlla di dem ba Assane Badiane mii tudde ma doom loolu bu ànd bi ñaawaan loolu du am kon du man dul sant leen gërëm leen di leen ñaanal yàlla yal na yàlla gën a guddal seen fan di ñaanal sama njaboot nag ndax njaboot da koy ñaanal mee doo ko sant ndax dañu wax ni njaboot weeru koor la wala nawet bu dee weeru koor sànka dogu jotul juubu du wees waaye bu dem nawet it tànk àggul ci cëppaandaw ja naaw na wees kon yàlla mi nga xam ni moo leen mën a suturaal yàlla leen suturaal di kontaan bu baax nag ci li nga xam ni moom la ñu ubbee waxtaan wi muy alxuraan ci maam aas pré dégg na ko kon dafa mel ni lépp lu ma doon sonn ci ñoom rusloowul ma ndax nit dina sonn ci njaboot bëgg mu mokkal alxuraan te yàlla du ko dogal sàkk gu ma sàkk woon ci ñoom nag pour ñu mokkal alxuraan yàlla dimbali na ma ci ba am na comme ni ko imaam Malick Sarr waxe yàllaa ngi dogal duma wàcce kaamil benn yoon bu doon fukki kaamil duma woo kenn sama waa kër a koy wàcc xale yi toog nii koo ci tukki mu jàng ko ak foo ko joxe rek mu jàng ko lii tuuti tuuti kon nag rawatina seeni mag loolu nag ndimbalum sunu borom la ndax nit dina sonn ci njabootam bëgg mokkal alxuraan mais yàlla du ko dogal yàlla mi nga xam ne nag moo ci dimbali ba loolu am maa koy sant ndax fi ma gën a sagale mooy fa ma nekk ci Saalum di fa liggéey amul benn yoon boo xam ni dinu xëy tool te te jàngunu xat mu te nawet ñeenti weer la boo seetee bis bu nekk nga jàng xat mu soog dem tool ñaata fan la ak ñaata xat mu la dafa mel ni ñoom kere ba nu duggee Thiénaba Gosaas ak tey ak xéewal am na cerebu Gosaas goo xam ne amu fa woon te loolu alxuraan moo ko waral kon dinaa leen sant bu baax di leen gërëm aussi di leen ñaanal yàlla yal na yàlla suturaal leen di sant it samay soxna bu baax di leen gërëm kom ni ko. soxna Adama waxe sàng ma wax ko astumaan na wax ko awa gay samay mag yóbbaale nun ma damay rafetlu kàddu yooyu ndax man ku nekk ak man fukki fan ak juróom ñu gërëm la xaw ngaa dee ndax man ku naqari deret la ku wa gaaw a gis sama bopp la te malu ma nen kon ku ma muñal ba nu gërëm la xaw ngaa dee loolu it moo dal sama njaboot bu góor ndax Ousseynou mi nga xam mooy sama taaw ku dem ba am sa biisu bopp ba sébbi sa bàyyi ni la gaare ko dem ca tool ya nga gaare ko dem ca tool ya ba nawet ak nga sa koo waral ndigal mënta paase foofu man nag doom ji ma jur ak jin ma jural laa yemale duma ma leen xàjjale waaye ku gis sama jikko rek ñaar rekk moo tax nga gis sama jikko nungoo liggéey ak jaamu yàlla ñaar yooyu moom ku ma ci joxat nga wan ma ginnaaw pare naa ci yow beralu ko kenn nag xëy nu ngoo liggéey jàpp sa njàmbur jaamu yàlla ñett yi dama ni ak njaboot bu mu mën a doon bi ma jur ak bin ma jurul moo ci yam ku ma ko déggalul pare naa ci yow du ma ko nëbbu guddi du ma ko nëbbu bëccëg parce que seen waajur yi nga xam moo leen jur muy ay jigéen kenn ñi mu ci fajar jot te toppoo ci sama ginnaaw doom ju ma jurit bu fajar jotee boo jugul julli fa nga nekk laa lay fekk sotti lam ndox boo ma tënk nga dem sa yoon fekk sama jaan wàcc na ndax loolu lan ma jàngalan su ma neexan du ma xëy di jàppam machine ku dem ba dégg monsieur le nekk au conseil collectif territorial di xëy di jàppam machine xam nga ni fonk sa métier moo tax yàllaa ngi dogal nag ñi ma yóbbu màkk ñépp bu aadama bii laa ci gën kontaan ndax lan moo tax daaw dama bay dugub mu nekk douze tonnes ma maye lépp ba mu jeex ñu dem ba ci biir nawet ma jënd dugub ren ma bay dugub xale yi nungu caabi ji téye ko su ma dikkee leen ana caabi ji ñun ma caabi ji daa réer te nekkul ngomb lu mën a daj mais kere ba ma leen ne dama bëgg jaay dugub ji yóbbu seen tante Adama kere lan ma jox caabi ji Adama mii yoonu Makka wi mu dem Ibrahima mii moo jaay dugub waa fas jom 15 tonnes yu dugub laa jaay paase la ko mu dem Makka. man ñi may paasal ñi dem Màkka jógewul ci carte jógewul ci jaay suuf jógewul ci njublan man noonu lay doxale maire bi fii laa ko teg sunu ma noon maire bi ak dem tool lu la gën a may leen bàyyi naa maire bi maa ngi dem tool moo tax léeg-léeg ñi ñi nga ñi ngay dégg ñuy wax li ñuy wax xamuñu di sant imam bu baax nag Moussa Mbengue di la gërëm ci sa doom ji nga xam dafa nekk ak man muy ma mbay muy xale bu jub xale bu xam boppam parce que dama ne bala ngaa gëm sa bopp da ngay xam sa bopp jëkk nit saa bu gëmee boppam te xamul boppam ci suuf la jëm nit day xam boppam soog a gëm boppam di ko ñaanal yàlla yal na yàlla gën a guddal fanam di sant Gora Diagne comme li ngeen ko waxe di ko gërëm bu baax ci nekk gi mu nekk ak sama wet di ma jàppale guddi ak bëccëg Gora gaaraas bii mu doon xëccool dafa dikk tàgguma ma ne ko bàyyi naa la man ngaa dem mu génn ma ne ko yàlla boo ci jot parce que bu ci jotee li ma doon defal dina gàllankooru ba pare ànd ceeg moom nag fu mu taxaw ma taxaw fi waaye xam naan di ci jot waaye bu doon ngoo liggéey rek ak dimbali askan lu mu xëccoo dina ci jot waaye man su ma ko ñaanalee dina ko dal parce que maag yaayam ñoo bokk benn baay te mu déggal ma lool nag góor du werante man góor du amul guddi amul bëccëg saa bu ma jëlee sama téléphone woo ko ni ko góor a foo nekk mu ne maa ngi bërëb sàngam man ko demal doxale ma nangam te ñëw dina dem régler ko dikkaat ca dara du yàqu kon góor maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yàlla yal na yàlla guddal sa fan. may seereel Ousseynou Badiane ñi nekk ci garage bi jamono yi ci ginnaaw bin defee délégation ñëw ci man ni ma danoo bëggan ñu waxtaan ak yow parce que danoo waxtaan ak góora mu bëgg a dem ci garage bi mais da leen ni sama ndijaay lu ci waxul duma ko def loolu moo tax ñëw ci yow bi mu dikkee may leen xanaa meneen góor waaye bu dee fekkee góor a jaaj mi rek garage du am président góor a deetu xëccoog garage tànk maa ngi dund parce que xam naa li ci njiit njiit boo xam ne danga bëgg a liggéeyal askan wi coono rek moo ca nekk ak saa boo xëyee ñu teg sa der loo xam ni mérito woo ko waaye loolu lépp dimbalu sunu boroom la kon góor maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di sant alaaji Mor Biram mi jëleen kàddu léegi dëkk Caraba jóge fa dafa jëkk a ñëw waaye du moom dong mooy ñëw ñu ngi may jàppale ci biir di ma jàppale ci biti kon maa ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla guddal fanaan Ousseynou mi ma doon wax léegi turandoo mi ngi nii mooy sama taaw ma tudde ko sama mag waaye bi fi nekkee xale ba mu man dara lépp ci war ci moom def na ko kon léeg-léeg bu ma woo sax di wax ci Ousseynou dama ko naa ñaanal ko yàlla parce que fi teg tànkam ñun foofu lan tegan sunu tànk bi ak si fii yàllaa ngi dogal tukki bii mu tukki mu jaar ci yoon wu tar wu metti bin demee ba mu ànd ak ay moroomam jafe-jafe am keneen moo ma woo téléphone ni ma wuseenu ne naa la woo parce que danoo am ay jafe-jafe yoo xam ne fi ñu toll dara wóoru ci man ko ah xaw ma ku àndulak moom ci benn oto wala nga ànd ak moom ci wenn yoon waaye képp ku ànd ak moom dinga nga mucc yàlla mi ma tiim li daa wax beneen il bi lu demee. suñu yaakaar ni foofu moo gën a ëpp jafe-jafe ba nu demee sax far tubaab yi jox ko bis bi mu di leen dawal ku jóge Sénégal paas booy fay ci Ousseynou lañ koy jaarale kon loolu ñaanu waajur moo tax moo tax kii kuy ànd nit te amul ñaanu waajur teel koo ba parce que du dem te dalay tardé nit day sàkku ñaanu waajur te ñaanu waajur nag du caaginut da ngay tiital sa nja say waajur wala bundu xataal leen ba nu jaaxle ci yow di la ñaanal ñaan ngay nungu déedéet. ñaan waajur boo ko bëggee dangay jëf lu ko jar kon xale yi maa ngi leen di ñaaxaat doom yi ma jur ak yi ma jurul ndax doom doom rek la maa ngi leen di gën a ñaaxaat ngeen gën a góorgóor gën a fonk seen diine maam aas maa ngi lay seereel ni ba ma leen di yóbbu daara ngeen dem di jàngale ci daaray jàmbur taxul ma di leen yóbbul dama bëggan bu ko yàlla dogalee daara ji ma leen yóbbu borom fulla ak fayda dong la am ba tax mu jàngaleen ba ngeen wàcc alxuraan kon fulla jooju am leen ko ba ubbi daara fu ngeen soxla dinaa ko ubbi daara dinaa ko tabax jox leen ko ngeen jàngale lii laa leen di ñaan loolu nag topp ci sama ginnaaw ak sama bëgg-bëgg mooy tax ngeen am ko yéewee gu kenn bu kenn yaakaar ne yéewee naa la foo ci waaye man di nekk te su ma ndigalit doo fa jëlee dara ndax bu dee yéen ñi sant bajaan seen waajur yi nekk ci kër gi ñoo ma jëkk a jox ndigal ma soo am accès ci yéen ndax man du ma xëccoo doomu jàmbur waaye da ngeen fab lépp jébbal ma seen yaay dooleel leen amul benn doom bu aadama jur ma yar ko aadama sant ko gërëm ko at mi ma ko yàlla dénkee at moomu laa dem màkk muy 2009 2009 ak tey at mu ma yóbbuwul ñaar yóbbu naa kenn te benn billet laa mas a jële ci état benn billet laa mas a jële ci état te at mu jot su ma yóbbuwul ñaar rek yóbbu naa kenn kon dafa mel ni jigéen diwu ma parce que ñu may la soxla nga dem màkk mu dellusiwaat at mu jot nga yóbbu ñaar mbaa kenn mais su ma jigéenoon kon du am kon maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla kaale gi nga xam ne moom la jëli woon parce que day yàlla day bind nit day jëli mais fekk na mi ngi ak moom nit lépp lu mu am moo ko may boppam kon yàlla na la jik di sant soxna sekk nag bu baax muy boroom kër gi soxna am na nu muy deme noo xam ni sunu demee wan xalam yii ma jur duñ ma jëx cër waaye soxna cër bi mu ma jox su yoboo man sax aadama mi joxuma ko kon soxna maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yàlla yal yàlla guddal sa fan te ji ñaan sunu boroom xéewal gi aadama def ban di ko gane la tey yal na la yàlla dogal bu déwénee nga def ko loolu laay ñaan sunu boroom kon sëñ bi jógal toog ci kaw sëñ Maam Mor déedéet ëpp naa def ëpp naa def jógal jógal toog ci sees bi ëpp naa def jógal toog jógal toog ci sees bi jógal toog si sees bi yóbbu yóbbul ko sees bi ne yóbbul ko ko sees bi ne sant ko gërëm ko at mi ma ko yàlla dénkee at moomu laa dem màkk muy 2009 2009 ak tey at mu ma yóbbuwul ñaar yóbbu naa kenn te benn billet laa mas a jële ci état benn billet laa mas a jële ci état te at mu jot su ma yóbbuwul ñaar rek yóbbu naa kenn kon dafa mel ni jigéen diwuma wu parce que ñu may la soxla nga dem mag mu del at mu jot nga yóbbu ñaar mbaa kenn mais su ma jigéenoon kon du am kon maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla e kaale gi nga xam ne moom la jëli woon parce que day yàlla day bind nit day jëli mais fekk na mi ngi moom nit lépp lu mu am moo ko may boppam kon yal na la jik di sant soxna sekk nag bu baax muy boroom kër gi soxna am na nu muy deme noo xam ni sunu demee wan xaram yii ma jur duñ ma jëx cër waaye soxna cër bi mu ma jox boo yoboo man sax aadama mi joxuma ko kon soxna maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yàlla yal yàlla guddal sa fan te ji ñaan sunu boroom xéewal gi aadama def ban di ko gane la tey yal na la yàlla dogal bu déwénee nga def ko loolu lay ñaan sunu boroom baax Seck kooku mooy sëñ Maam Mor Seck di doomu Baye Talla Xaar Eh, yàllaa ngi dogal commission bi nga xam ni mooy wàllu diine ci commune bi moom mii moo ko yor heure bi démb maa moom ñoo ànd ak góor mi siyaare su préfet ca Tëngéej ma di leen seereel ni ndox mu fi nit naan moo ko joxe bi ma droitee démb këram dama jikki baay rek ma gis maal bi jóg ñu sar sa oto ba mu fees defe naa ñi doon wàcce fii ndox mi dañ koy wàcce xam na ne oto bi dara xajatu te moom mi moo ko def kon sëñ bi yàlla yàlla fay la di nuyu it sama secrétaire Codou Fall mi ngi ci ginnaaw e, moom itam mooy sama secrétaire mi ngi ànd nag Talla Seck mille 2002 bi may ñëw 2009 nekk deuxième adjoint fi laa ko fekk. ba yàlla dogal 2014 ma jël maire bi mu nekk ci sama wet waaye boobaak léegi sikkante wunu ay gor nag bu nu àndee te sikkante wunu ak jub rek la ànde kon maa ngi koy nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm mu mel ni dañu wax ni wax du jeex waaye des koy dagg te heure bi jot na jigéen ñi bi nu déclaré ni añ yi pare na dama bëgg ñu añ julli tisbaar ñu soog a delluwaat ci waxtaan wi ndax ñi fi war a jël kàddu bari na waaye bala maa tëj rek may santaat useenu Badiane bu baax ak Assane ci ndigalul góor mi nga xam ne mooy seen mag ak Balla baax mi nga xam ni ak wéradi moo tax teewul fii Balla bu wéran ku dikk fii fi nga koy fekk kuy demet fi koy bàyyi di ñaanal yàlla yal na yàlla wéral ko yal na yàlla delloo sagoom ci moom di sant waa dëkk bi yépp nag mbaaleen awma seen pay te li may wax nii chef du village xam na li may wax imam miit xam na li may wax mbaaleen lépp lu ma fi wut am naa loolu nag seenu baax la ndax xale yi ñoo fi nekk di ma jàppale seen fulla ak seen fayda ak seenu mat tax na lépp lu ma war a def mbaalin te nekkuma fi deen ko def ba pare soog maa ràndal ko ba barki dem rek mucc mucc conférence bi ñu doon def fekk ma nekk ca tool yi di faru Mambay dafa ànd ak Ibrahima jóob lépp lu leen war def nañ ko di sant bu baax nag sama xar sama wëllëre Alaaji Badiane bu baax di ko gërëm Alaaji lépp lu waay di wax ci man te du noona boo ko séenee di nga nopp loolu nag ak dëgg moo ko waral kon Alaaji maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yal yàlla gën a guddal fanam euh, di ñaanal sama xalifa Alaaji alfa di ñaan yàlla yal yàlla guddal fanam te yokk ak wéram xam nga jamono dafa metti ni jamono mettee noon la ak bokk mettee bokk boo séen dara yënguwul xaw na noo dee Assane nee na wala Ousseynou 2008 la Ibrahima Badiane génn àdduna ba 2024 kenn mësta atte njaboot bi kon xaw ngeen a dee waaye bu leen ko bàyyi continuer leen ci li ngeen doon def buleen leen kenn xaj seen diggante buleen kenn yàqal seen yiw waaye nag ngeen di fàttaliku seen waajur di ko ñaanal gis nga waajur bu demee bàyyi la ginnaaw la muy jëkk a ko ci yow wala la muy jëkk a contrôler mooy bisub ajjuma wala bisub altine imaam yaa ngi nii toog amul benn niiwu jullit boo xam ni bisu ajjuma wala bisu altine di nga fanaan ci bàmmeel dangay toog di xaar sa njaboot ñaanal la soo demee ba fajar ji xaar te sa njaboot ñaanal la mu ni bàyyiwuma kenn ku baax loolu nag musiba la ñaanal sa waajur nag bisu altine wala bisu ajjuma teel a jóg moo koy maye. xañ doon ngeen ko def waaye amul benn ñaan buy nungu bu gën a farata doom ak waajur kon di leen fàttali seeni waajur bu baax di leen ñaanal guddi ak bëccëg waaye bésu altine wala bésu ajjuma da caa rawat ndax boo bu fajar jaxalee ñaanaloo sa waajur ña seeni doom ñaanal seeni waajur ñoom ñoo lay sédd ab cër sa waajur na ñu koy sedd ñuy séddale moo ko gën kon maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp sëñ Bàcci Gueye ñu ngi lay sant bu baax di gërëm ndax comme ni nga ko waxee Diop moog Ousseynou ak Ibra maa leen yar waaye Diop mësta werante man muy guddi muy bëccëg saa bu xëyee mi ci tool yi parce que ku ne xam ne ñoo bokk dëkk jaañ te manuma leen kon su fa bàyyi sa kër nekk sama kër dima jàppale ak baax a tax waaye nag defe naa rëccu dañuy yàlla rek lépp lu mu am ci man yal na yàlla barkeel ko di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant tund yépp yëpp nag fàttewuma kenn boo gisee waa cere ba ñu nu ñëwee ngeen xam ne sama nekk ba ñaawul su fekkee nekkan naa fa neneen jubóowuma ak ñoom ñii waa canaba ñëwee du ñu ñëwee surtout sëñ Mamor Seck mii yàllaa ngi may dimbali li dal commune yi daluma maa sama deuxième mandat mais mosuma woote réunion te aw ma korom waaye mosuma woote lu jàllul amul opposition amul parti pouvoir lépp lu ma proposé rek opposition ba ñoo ci jëkk a d'accord te seeni doxale ñoom ñaar ñii ñoo ko waral Mor it néew fi waaye il ma sant ko gërëm ko parce que mooy sama commission domaniale te bu fi nekkan tey du ma jël kàddu amul mbooloo mu may teew boo xam dinaa jël kàddu te Mor ne fa te loolu fullaam ak faydaam ak jàppale gi ma jàppale loolu moo tax ma def ko xalifa di la yóbbante ci alaaji Seex Géey di ñaan yàlla yàlla na yàlla guddal fanam yal na yàlla yokk sëgam te dolli ak wéram ndax day am yàlla moom néew na mu ne tàllalal sa loxo nga tàllal mu teg ca bari na lu doom aadama yi am wala lu doom aadama am rek daa am fu mu ko jaarale kon lépp lu ma am ci politique alaaji Cheikh Gueye laa koy gërëma ndax ci loxoom laa jaar kon maa ngi lay yóbbante nuyoo ci moom di ñaan yàlla yal yàlla fayal ñu ko yal yàlla sutural di sant ñëpp di gërëm ñëpp eh, Assane maa ngi lay sant boo wax fàttewuma la yow da ngay waaru biir ci man ndax yaag Abdou Fari benn ngeen te su ma neexee sax man naa koo wax aadama mii tey bu yàlla dogalee mu nekk samay loxo yow mi yaa tax ndax bi ma koy jox soxna taxu maa jox waaye yow mi yaa ma wax ne ma aadama soxla na ndimbal te am naa yaakaar ci yow te bu dul woon ak li mu seenu bajaan wax duma ci jot waaye moo wax ne ko Ibrahima bàyyi sama yaay foofa nga joggi ba boole ma ak moom kon il faut ma sant la gërëm la gis nga wax lu mu gudd gudd gudd te muy lu baax ak yiw dara nekk ci kon dama bëggoon xam naa ne xat la waaye jox sëñ maam Ngor parce que bu nit ñi xasee añ wala ñu julli mën na noo tasaatoo waaye mu sànni ay kàddu rek bu ko defee ñu andi añ yi xéewlu ñu julli waa ak Kolle waa goraa ngi may déy ni ma Kolle euh, ci conseil municipal yi la bokk waaye di ku jàmbaare ku taxawal mbaaleen bu baax a baax a baax kon Assane kon la ñu koy sant bu baax di ko gërëm euh, di ñaan yàlla daal yàlla na yàlla doon sutura yi maa ngi jégalu ñëpp nag e, imam Malick ñu ngi lay jégalu ci kàddu yi di jégalu waa mbaaleen gépp di jégalu sëñ euh, Alaaji Moussa Mbeng xam naa soo euh, maam daaneele rek sëñ Moussa day def ñaan bu ko defee ñu soog a añ kon sëñ maam Mor kàddu gàngoo kooku mooy sëñ Maam Mor Seck di doomu Baye Talla Xaar eh, yàllaa ngi dogal commission bi nga xam ni mooy wàllu diine ci commune bi moom mii moo ko yor aar bi démb maa ngi moom ñoo ànd ak góor mi siyaare su préfet ca Tëngéej ma di leen seereel ni ndox mu fi nit naan moo ko joxe bi ma droité démb këram dama ji xibaar rek ma gis maal bi jóg ñu sar sa oto ba mu fees defe naa ñi doon wàcce fii ndox mi dañ koy wàcce xam na ne oto bi dara xajatu te moom mi moo ko rek kon sëñ bi yàlla yàlla fay la di nuyu it sama secrétaire Codou Fall mi ngi ci ginnaaw eh, moom itam mooy sama secrétaire mi ngi àndal nag Talla Seck depuis 2002 bi may ñëw 2009 nekk deuxième action yi fi laa ko fekk ba yàlla dogal 2014 ma jël maire bi mu nekk ci sama wet waaye boobaak léegi sikkante wunu ay gor nag bu nu àndee te sikkante ak jub rek lanu ànde kon maa ngi koy nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm mu mel ni dañu wax ni wax du jeex waaye des koy dagg te heure bi jot na jigéen ñi bi nu déclaré ni añ yi pare na dama bëgg ñu añ julli tisbaar ñu soog a delluwaat ci waxtaan wi ndax ñi fi war a jël kàddu bari na waaye bala maa tëj rek may santaat Ousseynou Badiane bu baax ak Assane ci ndigalul góor mi nga xam ne mooy seen mag ak balla baax mi nga xam ni ak wéra di moo tax teewul fii balla bu wéran ku dikk fii fi nga koy fekk kuy demet fi nga koy bàyyi di ñaanal yàlla yal na yàlla wéral ko yal na yàlla delloo sagoom ci moom di sant waa dëkk bi yépp nag mbaaleen awma seen pay te li may wax nii chef du village xam na li may wax imaam mi it xam na li may wax mbaa lépp lu ma fi wut rek am naa loolu nag seenu baax la ndax xale yi ñoo fi nekk di ma jàppale seen fulla ak seen fayda ak seenu mat tax na lépp lu ma war a def mbaaleen te nekkuma fi deen ko def ba pare soo maarandal ko ba barki dem rek mucc mucc conférence bi ñu doon def fekk ma nekk ca toole di faru ma Mambay dafa ànd ak ibraahima jóob lépp lu leen war def nañ ko di sant bu baax na sama xar sama wëllëre Alaaji Badiane bu baax di ko gërëm Alaaji lépp lu waay di wax ci man te du noona boo ko séenee di nga nopp loolu nag ak dëggu moo ko waral. kon alaaji maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla gën a guddal fanam euh, di ñaanal sama xalifa alaaji alfa di ñaan yàlla yal na yàlla guddal fanam te yokk ak wéram xam nga jamono dafa metti ni jamono mettee noonu la ak bokk mettee bokk boo séen dara yënguwul xaw na noo dee Assane nee na wala Ousseynou 2008 la Ibrahima Badiane génn àdduna ba 2024 kenn mësta atte njaboot bi kon xaw ngeen a dee waaye bu leen ko bàyyi continuer leen ci li ngeen doon def bu leen kenn xaj seen diggante bu leen kenn yàqal seenu yiw waaye nag ngeen di fàttaliku seen waajur di ko ñaanal. gis nga waajur bu demee bàyyi la ginnaaw la muy jëkk a fàttali ko ci yow wala la muy jëkk a contrôler mooy bisub ajjuma wala bisu altine imaam yaa ngi nii toog amul benn niiwu jullit boo xam ni bisu ajjuma wala bisu altine di nga fanaan ci bàmmeel da ngay toog di xaar sa njaboot ñaanal la soo demee ba fajar ji xaar te sa njaboot ñaanal la mu ne bàyyiwuma kenn ku baax loolu nag musiba la ñaanal sa waajur nag bisu altine wala bisu àjjuma teel a jóg moo koy maye xaj na doon ngeen ko def waaye amul benn ñaan buy nungu bu gën a farata doom ak waajur kon di leen fàttali seen i waajur bu baax di leen ñaanal guddi ak bëccëg waaye bisu altine wala bisu ajjuma da caa rawati ndax boo bu fajar ji xale ñaanalu sa waajur ña seen doom ñaanal seen waajur ñoom ñoo lay sedd ab cër sa waajur na ñu koy sédd muy séddale moo ko gën kon maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp sëñ Bàcci Gueye ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ndax comme ni nga ko waxee Diop moog Ousseynou ak Ibra maa leen yar waaye jóob mësta weranteeg man muy guddi muy bëccëg saa bu xëyee mi ci tool yi parce que ku ne xam ne ñoo bokk dëkk jaan te manuma leen kon su fa bàyyee sa kër nekk sama kër dama jàppale ak baax a tax waaye nag defe naa dañuy ñaanal yàlla rek lépp lu mu am ci man yal na yàlla barkeel di sant ñëpp di gërëm ñépp di sant tund bi yëpp nag fàttewuma kenn boo gisee waa cere ba ñu nu ñëwee ngeen xam ne sama nekk ba ñaawul su fekkee nekkan naa fa neneen jubawuma ñoom ñii waa cere Thiénaba ñëwee du ñu ñëwee surtout sëñ Mamour Seck mii yàllaa ngi may dimbali li dal communes yi daluma maa ngi sama deuxième mandat mais mosuma woote réunion te awma korom waaye mosuma wate lu jàllul amul opposition am amul parti pouvoir lépp lu ma proposé rek opposition ba ñoo si jëkk d'accord te seeni doxale ñoom ñaar ñii ñoo ko waral Mor it new fi waaye il ma sant ko gërëm ko parce que mooy sama commission domaniale te bu fi nekkan tey du ma jël kàddu amul mbooloo mu may teew boo xam dinaa jël kàddu te Mori ne fa te loolu fullaam ak faydaam ak jàppale gi ma jàppale loolu moo tax ma def ko xalifa di la yóbbante ci alaaji Seex Géey di ñaan yàlla yàlla yàlla guddal fanaan yal na yàlla yokk wërsëgam te dolli ak wéram ndax day am yàlla moom néew na mu ne tàllalal sa loxo nga tàllal mu teg ca bari na lu doom aadama yi am wala lu doom aadama am rek daa am fu mu ko jaarale kon lépp lu ma am ci politique alaaji Cheikh Gueye laa koy gërëme ndax ci loxoom laa jaar kon maa ngi lay yóbbante nuyoo ci moom di ñaan yàlla yàlla yàlla fayal ñu ko yal yàlla sutural di sant ñëpp di gërëm ñëpp eh, Assane maa ngi lay sant boo wax fàttewuma la yow dangay waaru biir ci man ndax yaag Abdou Fari benn ngeen te su ma neexee sax man naa koo wax aadama mii tey bu yàlla dogalee mu nekk samay loxo yow mi yaa tax ndax bi ma koy jox soxna taxumaa jox waaye yow mi yaa ma wax ni ma aadama soxla na ndimbal te am naa yaakaar ci yow te bu dul woon ak li mu bajaan wax du ma ci jot waaye moo wax ne ko Ibrahima bàyyi sama yaay foofa nga joggi ba boole ma ak moom kon il faut ma sant la gërëm la gis nga wax lu mu gudd gudd gudd te muy lu baax ak yiw dara nekk ci kon dama bëggoon xam naa ne xat na waaye jox sëñ man Mor parce que bu nit ñi xasee añ wala ñu julli mën na noo tasaatoo waaye mu sànni ay kàddu rek bu ko defee ñu andi añ yi xéewlu ñu julli Hmm? waa ak Kolle waa góoraa ngi may déy ni ma Kolle eh, ci conseil municipal yi la bokk waaye di ku jàmbaare ku taxawal mbaaleen bu baax a baax a baax kon Assane kon koy sant bu baax di ko gërëm euh, di ñaan yàlla daal yàlla na yàlla doon sutura yi maa ngi jégalu ñëpp nag euh, imam Malick ñu ngi lay jégalu ci kàddu yi di jégalu waa mbaaleen yëpp di jégalu sëñ euh, Alaaji Moussa Mbeng xam naa soo Maam Mor daaneele rek sëñ Moussa day def ñaan bu ko defee ñu soog a añ kon sëñ Mamor kaddu gaango wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonent bi sa alayhi ñu ngi nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi ronu baas bi ak koo xam ni ronu woo baas bi di nuyu imam ak chef ak ñi ñu bokkal dëkk bi ñëpp di ñaan yàlla buur subhaana taala suñu soxna si ak suñu mag yi demoon màkka di ñaan yàlla lépp loo xam ne nii ziyaare woon na ko Seydina Mohamed yàlla na ko suñu borom bi nungul di ñaan yàlla lépp lu fa ñaan rek yàlla na ko suñu borom bi nungu bi jaay Seydou wu jot Moussa Lamère dafa bëgg du rafet rek ak joxe cër waaye kaddu yu mu fi yëkkati rek mën naa ni kaddu yooyu yóbbaale na suñuy kaddu ñun ñëpp ndax nekkuñu ñaari jëmm benn jëmm rek lañ te kaddu yu mu fi yëkkati tey jii nii ku ko joxoon ku nekk rek waroo koo jël sax ndax tey jii mu war a yëkkati ay yàlla doole féq soo fan te dool laa taxaw ci biir ci biti ah, nit nag su bëggee lu baax tey def lu baax jërëjëf ak ñaanal ko du mos a doy ci moom ba mukk te yow nit nit nga koo xamante ni loolu lu baax rek nga bëgg sutura rek nga bëgg ah, tey boo demee ba yàlla dimbali la nga am xolop koo gis ku ne yéene ko lu baax yaakaar naa ne kenn gënatu la dem ba yàlla dimbali tamit soxna yi nga am nga commencé di leen yóbbu màkk te am nañ yaakaar ni incha allah yàlla bàyyi ak gudd fan ñëppay dem te loolu moom am nañ ci yaakaar baax na sa xol ëmb na loolu waxuma la say soxla sax waaye ñi yàlla boolee sax am nga yéene tey ji su la yàlla mayoon kàttan googu bu ma dem màkk jotee di nga yóbbul ma téeméeri dina xol boobu yàlla jox na la ko waaye maa ngi ñaan yàlla njaboot gi la yàlla dénk te gis naa ne ay jàmbaar lañ te am nañu yéene ci yow am nañu yéene ci lu baax yal na yàlla fay la sa xol ci sa njaboot ba li nga lu baax lépp ci nit ñi nga dem ba sa njaboot mën la koo fay sa bopp ak ñii ñi. di la gërëm di la sant bu baax a baax seen taxawaay démb wax naa ko ci kanam su préfet bi muy wax taraanga ji nga jël andi ko foofu muy nag woo xam ne moom nga jënde fii yóbbu ko foofu dama ne ko nag woowu cere ba la ko tàmbalee cere ba la ko tàmbalee soo ko agsi ci Tëngéej lu baax loolu ngay def jaañ yal yàlla fay la di nuyu sëñ Gora Diagne bu baax man damay ñi damay wax ni nit bu nungoo bu nungoo kilifteef kenn du ko gën te mag ñi dañuy wax nit ki wàcce boppam ba kenn bëggul kenn xam ko yàlla da koy yéege góor bi mu ñëwee fekk la nga toog ci suuf yàlla sama yàlla xam na ni sama xool dafa dem ci lu baree bari yal yàlla gën laa jàppale waaye maire ñu ngi lay ñaana waaye ñu ngi ñaanal bi sa njaboot waaye di ñaanal Ibra Diagne mii di sa doom xale la mais xale bu am xalaat la ku bëgg lu baax la ku am pas-pas la yàlla na ko yàlla gën a taxaw moo képp ku koo xam ne sa njaboot la di ñaanal nag sa soxna yëpp nag yàlla gën leen jàppale gën leen taxaw di ñaanal nag tund jaayaan wii ngeen xam ne yàlla may na leen doom joo xam ni ku sañoon jur ko muy Moussa Lamine Talla Diagne kon yéen waa tund wi lépp lu ngeen mën a jàppale musal a maire wala ko kenn jàppale yéen tund wi na ngeen ci gën a bay seen waar ci biir ak ci biti Arma ñu ngi lay nuyu bu baax sàgg la maire di jotale say say say say taxawaay ñu ngi lay ñaanal yow yàlla gën laa jàppale te yàlla gën laa sàmm te wattu la baax mais daal kontaan te mënut a weesu kontaan ñun li ñu taxoon a jug rek mooy fépp foo xam ni rek yow yaa ngi fa nekk rek ñu nekk sa wet ba ñëpp xam ni suñu kàddu démb mooy suñu kàddu tey ci yow di delloo feddali nag suñu diggante ak yow li ñu yàlla boole woon ginnaaw ak mbokk ak li nga xam ne doxal na ko ci muy wàllu àdduna ñu ngi lay xamal ne tey lañu gën a taxaw sa ci biir ak ci biti te duñ ci daw dara ndax lu tax duñ lu ñaaw wax naa ko démb ci kanam su préfet rek maire boo xam ne tabaski daa jot mu jël ab seesam dem ba ci dara ga mu toog fa maire bu ko mën a wax rek na nga ko wax bu dul maire canam loolu nag li la ko may nag aw fi da la ko may ak bëgg dimbali jaam yàlla yi kon yàlla nga fi yàgg lool te ànd ak wér te maa ngi lay wax ne di nga fi yàgg de li tax ma ne di nga fi yàgg mooy yàlla nee na sama jaami laa am te sama jaami ku leen taxaw man yàlla ma taxaw la ku tàlla sa loxo jëm ci jaami yàlla yàlla nee na ma tàlla sama loxo jëm ci yow te ku dimbali jaam yàlla yàlla ne day bëgg nga yàgg fi kon lii nga nekk bu ci jug de yal na yàlla gën laa jàppale képp ku taxoo yow nag see bu ak coxor nekkoon ci moom see mu jéem a baax ndax nekk ak nit ku baax te te tabe maanaam borom xol bu yaatu dëgg moo mën a dékku borom xol bu yaatu dëgg dëgg dëgg moo koy mën a moo koy mën a dékku sam papa dafa nekkoon hôpital mais bu docteur yi musaana ñëw di ko faj yi boo ko dee bés danaa la demal too fee xaar moo pare boo génnee ba mu jëflanteeg ñoom ba pare danaa la damay bañ li may jëflanteeg ñoom nga di ko gis soxal di ci di ci naqar yi muy lekk loraange ci yéen moo tax ku yàlla dimbali am waajur boo xamante ni nii day day dimbali ay nit yal yàlla may la xool boo xam ne di nga ko mën a dékko ba lu mu def nga ànd ci ak kontante nga yal yàlla gën la jàppale di nuyu saasum sëy mi nga xam ne ci ancien maire la bokk waaye nag ancien maire donc boole ko ak maire ci ñi nga xamante ni ci bon benn benn bokk yaakaar ñi ko taxawal ci la bokk maire nee na kon ñi ngi lay sant di gërëm ñi nga xam ne ñoo jóge cene ba ñëpp kaddu yi dafa gudd te a ne xam na ni waxtu wi jot na waaye suñu waxtaan ci maire du doy mukk ñi ngi ñaanal yàlla nag aju demam ujaaj bi yàlla yàlla nungul ko bu déwénee bare di nuyu nga xamante ni ndeysaan la boo xam ne du tayal ci maire mukk foo ko fekk mi ngi ci maire moor yàlla na la wér sa sutura yàlla na yàlla dolli ko yàlla na sa wér dolli ko ñu ngi nuyu ñëpp di ziar suñu di di jàll di di ñaan yàlla suñu nijaay ju baax ji génn àdduna bàyyi alaaji an ca mbaax ga ak ci bëgg lu baax ga yal na yàlla yéetal yaatal bar saqam yóbbu ci àjjana gën a kawe ñu ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp di wax salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu di leen baal di leen baalu àq di jiital ci nuyoo bi borom dëkk bi di ci teg El Hadj Talla Diagne. monsieur le maire. di ko beral cant. di ko beral cant. di ko beral ab nuyoo. di ko beral ab nuyoo. ci biir waxtaanam. ci biir waxtaanam. insisté na ñaari yoon. insisté ñaari yoon. ci man mii. ci moom mii imam Moussa Mbengue. ak ci man mii. ak ci man mii di jot li kàddu yi. loolu lépp ak mbaax la. loolu lépp ak mbaaxam la. kóllëre gu yàgg la goo xam ne. kóllëre gu yàgg la goo xam ni. saa yuñ xëyee di ko suuxat. saa yuñ xëyee di ko suuxat. mu téyel ma sama doom jii mu téel ma sama doom ji. sant seen kanam. sant ko ci seen kanam. sant goo xëy. cant goo xam ni. du ngistal. du ngistal. noonu mel nag. noonu mel nag. muy sama doom ji. muy sama doom ji. man noonu laa ko yare. man noonu laa ko yare. jub ak jubal. ak jubal. ak dëggu. dëggu. ci loolu laa ko yar. ci loolu laa ko yar. moo taxit. moo taxit. alaaji taala. alaaji mu mën a ànd ak yow. a ànd ak yow ba sikkoo ko alaaji taala maa ngi lay sant geenu goro gudd na waaye lu ca dal borom yëg ko ni nga jàppalee ma mbay mi xam naa ko teg naa ci sama bët itam moo ki moromam ñoo fa nekk ñoo fa nekk waaye fi nga ko teg sa kanam waaye fi nga ko teg sa kanam ak fi nga ko teg ak fi nga ko teg ak ni nga ko doyloo ak ni nga ko doyloo bëriwul ñoo ko doyloo bëriwul ñoo ko doyloo may itam may itam li ma la mënal mooy li ma la mënal mooy ñaanal la yàlla ñaanal la yàlla ci saayir ci saayir ñaanal la ko ci baatin ñaanal la ko ci baatin di la jàppale itam di la jàppale itam sama kem kattan man nag jikkoy ciment laa yor man nag jikkoy ciment laa yor tooy ñaar yoon du ma tooy ñaar yoon sama gémmañ gi sama gémmañ gi yàlla dimbali na ma yàlla dimbali na ma waa mbaaleen doo nga fa nekk nag waa mbaaleen doo nga fi nekk nag. ñaari làmmañ du sax. ñaari làmmañ du ci sax. wax lii tey. wax lii tey. ma wax lii. bu ëllëgee ma wax lii. wala mu wax lu ma nërul. du ma def loolu. du ma def mi xam na ni. Mbaye mi xam na ni. képp koo xamante ni. képp koo xamante ni. bokkunu jikko ji. bokkunu jikko ji. danaa bàyyi. danaa bàyyi. mun leen ànd dem ci buntu kër bi. mun leen a ànd dem ci buntu kër bi. man noonu la ma yàlla bindee. ñàkk fayda. ñàkk fayda. ak doyadi. ak wax loo nërul. yàlla bindewu ma ko yàlla bindewu ma ko ku ko yàlla bindewu itam ku ko yàlla bindewu itam mun noo ànd alaaji taala jërëjëf man nga xarit man nga àndandoo man nga dëkkandoo man ngay kilifa wa ma sayid naa ilaa bi ma alim naa man na duma wax man nag man nag du ma wax. pour lu neex nit ki. pour lu neex nit ki. ndax yàlla dimbali na ba. ndax yàlla dimbali na ba. lu ma waay defal. lu ma waay defal. fekk na am naa ko. lu ma waay defal. fekk na man naa ko. may wax ci nit. te su may wax ci nit. yàlla mooy tax. yàlla mooy tax. may wax. kon alaaji taala jërëjëf. kontaan naa ci yow bu baax. yal yàlla doole sa sutura. yal na yàlla doole sa wér. yal na yàlla doole sa jàmm. place bi nga nekk. nga toog ba doyel. ànd ak ànd ak wér man loolu laa lay ñaanal yàlla ndox dëkk bi amul bay jàkk ji amul jàkk ji baa koy fondement di ko tabax ba may àgg ci bantloo sa loxo jógu jàkka jàkk ji kon man kon man du ma man lu lu sant la kàddu gi ma la sant nag kàddu gi ma la sant nag yóbbaale naa borom dëkk bi yóbbaale naa borom dëkk bi yóbbaale naa waa dëkk bi yëpp yóbbaale waa dëkk yëpp suñu xol seet na ci yow suñu xol seet ci yow. jigéen bi itam suñu jigéen bi nga yóbbu Màkka nga yóbbu Màkka. mu ziyaare ji Rasulullaahi. ñun ñëpp nga ko defal ñun ñëpp nga ko defal. boo ci dugalee. ab dëkk boo ci dugalee. boo ci dëkkee. boo ci dëkkee. mbaa nga ñëw ca. mbaa nga ñëw ca. teral ca kenn nit. teral ca kenn nit. teral nga ñëpp. ni nga terale Adama. ni nga terale teral nga ñun ñëpp. teral mi ñun ñëpp. Adama mii. Adama mii. baayam bàcc bajaan. ak songa bajaan. mook songa bajaan. seen baay bàcc bajaan. mooy rakki Mbooja Badiane sama yaay ñoo bokk benn baay kon boo defee teraanga bi ci xeetu Adama ñun ñii xeetu Adama ñun ñëpp nga ko defal alaaji taala teraanga yàlla na yàgg sa loxo wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu imaam mu ni ñu def def ñetti alam nasara ñaar fukki yaa salaamun ak benn ñaanal yàlla ñaanal yàlla alaaji taala kayam gi yàlla na gën a yàgg yàlla na gën a neex sunu njiglaay la moom sunu njiglaay la moom waaye yàlla na yàgg a nekk sunu njiglaay ku ne xam na ni mbaa leen ca kanam ku ne xam na ni mbaa ca kanam mbaa leen kanam dëkk bu mu doon mu doon nga wër mbaa leen nga wër mbaa leen nga doon ñee waaye ñun ñeewuñu la kon ñun sant yàlla rek alaaji taala sakay jig nañu kon ñu def ñaan amin amin ya rabbal alamin amin اللهم صل على سيدنا محمد آمين يا رب الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق